Aïda mi may dugal euh, sœur la ci ki nga xam ni moom mooy Aziz euh, Aziz Dabala. Dabala euh, Aïda maa ngi lay ziar. waaw delloo ziar wàññi leen wàññi télé bi. Aïda. maa yaa ngi ci jàmm bu baax. waaw maa ngi ci jàmm bu baax a baax Fane waaw ñoo ngi lay waat Abdou Aziz di ko jaale sa yaay di ko jaale famille bi yëpp. waaye di ah, ko jaale tamit euh, sénégalais yi yëpp ma bàyyi la nga jaale sénégalais yi ndax sénégalais yi bokk bokk ngeen yéen ak tiis bi. allo waaw. Ayda Ayda da ngay déplacé wut Sénégal gépp lay déglu. yaa ngi en direct ma bàyyi la nga jaale sénégalais yi. Ayda ah, euh, mi moom mooy Ayda allo. waaw xam nga génn fenn. voilà d' accord euh, Aïda grande euh, Aïda sëru Aziz Dabala la euh, nga xam ni biñ leen dégloo ñoom juróom-ñett juróom-ñaar yi. Mm-hmm. fële ci tribunal biñ la ab ñu paree dañu def. waaleykum salaam wa rahmatullah waaw nuyu naa la bu baax a baax a baax. maa ngi lay fay bu baax a baax a baax di la jaalewaat suñu frère bi. Ah, ah di leen ko jaale yéen tamit bu baax ndax as ñun ñëpp ñoo ko bokk. dëgg la. Uh-huh. Euh, euh, tey euh, bi ñu baan fi may tàmbalee gi yéen mooy bi ngeen tàmbalee di dégg di dégg ay tur yoo xam ni ay xaritu Aziz lañu wala ñu daan fréquenté Aziz ban yëg-yëg ngeen amoon ba pare. allo allo waaw. waa nga bi ngeen tàmbalee di déglu ay tur yoo xam ni ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi leen di feeñal ci enquête bi. waaw dëgg la. ñoo xam ni ñu daan fréquenté Aziz la ban yëg-yëg la famille bi am ak ban betteel ngeen am. ah <laughs> waa am nañu mbetteel bu baax a baax a baax parce que ñun moom ñu ñu ci jot a dégg ñëpp wax dëgg yàlla ñeneen ñi moom man boo xamaguma leen wala xam na awma seen photo moo tax. waaw mais kenn ki rek lañ xam kooku sama sama mag la laay wax sax. Mhm. sama mag la suñu dëkkandoo la. Mhm. te seen kër ñoom sama yaay am na ko turandoo. Mhm. en même ci moo ci kan. moo ci Serigne Sarr. Serigne Sarr fa turandoo magam mhm. di sëy ci yéen. rakkam di sëy ci yéen. rakk mhm. rakk ji nan la dundee rakk ji nan la dundee. bi mu yëgee ni magam tudd nañ ko ci. ah man moom wax dëgg yàlla euh, gisuma am na lu ko nakari nag xam naa. waaw waaw. am ko nakari. Mhm. mais man wax dëgg yàlla ñun amuñu luñ ko luñ ko fiy def dara parce que ñu ngi nekk ak moom comme ni ñu war a nekkee ak moom rek. te moom rayul. non parce que deful yàlla deful deful wax dëgg yàlla deful amuñu leen nuñ meree wax dëgg yàlla. très bien mhm. beneen bi euh, tamit euh, Nabou Leye miin ngeen ko ci Aziz. bi ngeen déggee turam tamit ci mbir mi nan ngeen nan ban betteel ngeen am. Ah, comme ñu ko ñu déggee rek lañ ko déggee wax dëgg mhm. yàlla parce que Nabou Leye moom man moom man man boobu sama bopp laay waxal man sama mag la mhm. sama xarit la dañuy déggante wax dëgg yàlla dañuy déggante depuis mhm. ñoo dañu ay àndoon ci seet sama yaay mook Aziz ñoo fi ànd mais bu ñu déggee affaire bi ñu ne ah waaye def nañu daal parce que man yaakaaroon naa ni ci keneen lay nekk mais pas ci moom wax dëgg yàlla yaakaaroon nañ ko ci keneen ci keneen ci keneen mais amuñu woon man wax yàlla moom boo ba bu tey dañ may am ñu may gëdd sa naam yow kañ ngay yeewu kañ ngay yeewu mais mënu ma ko gëm ba léegi dama ne tànk na bu waxul ma wax lu waxul ne moom moo def bu ab abuyewul man du ma ko du ma ko mën a gëm mhm. dëgg yàlla ba tey moom ko du ma ko du ma daal ci àddina tànk mhm. waxul ne moo def tànk waxul ne moo def mhm. ndax na bu ñëwoon na ci dëj bi oh, non ñëwoon na bu ñu robee Aziz ba pare bu ñu su ko dëj bi jeudi waaw si ay si euh, ay 17 ñëwoon na fi ànd seeg yaayam. Mhm. ak euh, magam bu góor ñu ñëw si wax bi wax bu rafet wax bi rafet. Mhm. wax yàlla ñëwoon na fi ñëwoon na fi waaye dafa ne moom tamit euh, du mën a ñëw jour dëj bi parce que day daw interview yi ak wax ji affaire yooyu noonu day diis si moom ñaan ñu ko tamit ñu nangul ko ko bu baax a baax a baax dëgg yàlla. ok mhm. beneen bi fi may duggee damaa dégg maanaam nabu bi nga xamee ni maa ngi dégg say kàddu nabu bi moom ci boppam. am na fu mu waxee ni police moo dajji euh, bunt bi am foo xam ne dañoo wax ni sa la woo. Uh-huh. Euh, am na foo xam ne yow sax woo na la téléphone ni la mënatumaa xaar ndax mën nga maa dikkaatal ci seen boobu rek. waa man ci boppam bu mu nabulee bu moom woon tamit euh, jeudi jeudi waa la ñu rob Aziz si guddi gi moom waxtaan nañu 44 minutes maa ngi moom. Hmm. après man maa ko laajal boppam na ko. yow Nabou Leye kan moo daaj ji euh, porte Aziz moom si boppam defal ma carrément police moo ko daaj ji. Mhm. loo wax di nga ko wal ak sama bàmmeel laa taxaw. moom ci boppam fi mu moo ne ma carrément police moo ko daaj ji. waaw mais sama mag bu góor bi ak moom laaj ko dafa ne ma carrément police daaj ko moom bu muy ñëw fekkee Nabou Leye préparé na ba indi bu ñu ko waxatee sax daaj ji katam. Mhm. bu mag kon avant sa avant sa frère bi di ñëw na bu andi na ki war a daaj bunt bi. waaw moom pare na waaw kay pare na ci lépp di xaar. waaw parce mhm. mhm. mhm. léegi euh, euh, sa frère bi nee na bi ñu bunt bi. waaw Modou Kane nee bu ñu daajee bunt bi bu ñu daajee parce que bu mu buuxee bunt bi rek. waaw comme traite a gis traite la njëkk a oh. moom moom xamatul wax. mais après na bu leen moo naan ko moo naan ko duggal duggal. mais bu doon man la wax dëgg yàlla du du ma mën a dugg parce wax dëgg yàlla mu doon désert ba pare di ko wax dëgg yàlla ragal naa loolu dëgg la léegi Modou Kane dugg mën na ko duggal ci euh, néeg bi mhm. moom ba tey moom ci kóor gi taxaw Modou Kane dugg ci néeg bi mu ne ko loo gis Modou Kane ne ko dara mu mhm. ne ko dugg ci salle de bain bi mhm. Modou Kane fene dugg ci salle bi gis waali rek daanu yaakaar ne Aziza ndeysaan daanu mu daanoo nag euh, am na ak lu mu ko yëkkatee noonu. Mhm. ba tey na bu laaj ko lu xew kan la koo gis mën na ko kii ma gis daal naan du aji mën na ko nu mu mel. Mhm. ndax dafa dégradé wu. Modou Kane na ko waaw mën ko waali la xamoon naa ni waali la xamoon naa ni rey nañ ko. Mhm. Nabou Leye moo ko moo ko moo ne moo ne ko moo ko duggal ci toilette bi mu dugg ci toilette mu fekk fa booy waali. mu fekk fa waali. après après kii dugg ci kii bi nu mu tëjee ci. ci la gisaat euh, Aziz mu ne ko xamoon naa ni rey nañ ko. waa kay boobu moom ci saal bi ñu. moom waaw. waaw moom ci saal bi ñu tëj boobu moom moo ko gis. moo ko ok moo ko gis. Mhm. Euh, mu doon mu doon mu doon mu doon mu doon lu doy waar loo xam ne vraiment Sénégal yëpp ñoo ngi leen di masawu. Euh, mhm. sa yaay tamit gis naa mu mu doon ko am dal. parce que nee na du wax wax ju ñaaw ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy nabu. Euh, euh, tey euh, kii nu mu tëddee Aziz. Uh-huh. moo moo Boy Wally ndax xam nga seen relation seen xamante fan la tàmbalee. waa Aziz ak Wally man ci lu ma Aziz wax benn xaritu Aziz mm-hmm. moom la moom mooy liggéeyal Wally dafa mel ci lu ma Aziz wax. Mm-hmm. moo ko booleeg Wally. ne ko dafa bëgg dafa bëgg waali nekk ak moom parce que ay xale bu baax la nangam ak nangam ndeysaan xam naa tamit yàlla moo leen boole après léegi moog waali ñu nekk mais waali premier jour am mu xamante ali ba pare ak man nii mhm. kenn guddi dama ko fàtte mukk ndax vidéo yaa ngi sama téléphone ma yor Aziz ñëw ma mënee andil photo ndaw si sama côté mhm. présenté ko sama yaay mhm. présenté ko man nii jour boobu noonu après ci li ñuy waxtaan ba waali di jooy Aziz naan sama yaay yaa yaa ngi jooyloo waal ka waal dafa ñàkk yaay ñun suuf boobu sax la ñuy doog a xam ne ni waal dafa ñàkk dafa ñàkk yaay. Oh. Mm-hmm. waaye seen diggante ñoom ñaar seen xamel ci trois mois. trois mm. mois net lañ xamante trois mois net. ah nga xamante maanaam bi ñu xamanteeg léegi si ñetti weer képp la la affaire bi am. ñetti weer waaw kay ñetti weer mm-hmm. ok ok ok mm-hmm. eh, eh, eh, fi may fi may fi may fi may jeexaleeg yow rek moom mooy Aziz bokkoon na ci benn tontine. ci ka nga xam ne mooy Nabou Leye. ba am la lu mu lu waxoon ni la war naa teg teggi ndax mën nga maa dikkaatal ci wax ji la Aziz waxoo ni la bokk naa tontine ba war koo teggi ndax loolu am na kàddu yooyu. waaw mercredi bi Aziz ma Diouf. Aziz dañoo waxtaan ba lu muy ñibbee ma Aïda maa ngi toog ménagère am daa ngi toog ñun maag moom ak yàlla ñoo fekkee ci néeg bi Aziz dama Aïda ma ko naa mu ne ma man de bokk naa ci nabu natt Aziz mooy wax. Mhm. man de teggi naa sax waaye man nabu lay joxaguma sama xaalis. man mm-hmm. tamit ma ne ko man de sax nabu lay proposé woon na a nattam boobu noonu. Mm-hmm. natt bi or la basang bi ak di euh, gër ak sama beneen bi un million la bu ma ko waxee Aziz Aziz dafa réeré mais tontuwuma. Mm-hmm. mais man lu tax man Aziz bàyyi ma message boobu noonu boo ko dem. affaire bi jaaxal na ma parce que dafa ne Nabou Leye yoral na ko natt mais teggil na ko mais joxagu ko xaalis bi mais man tamit wax dëgg ko Nabou bu ma woowee téléphone. na ko Aziz nee na da nga koo yoral xaalis natt. Mhm. ndax jox nga ko wala joxoo ko ko mais dafa ne ma carrément xaalis gu matul woon. Mhm. mais mujj na koo dajale ba xaalis gu mat ba jox na ko Aziz man Nabou Leye yi la ma wax. mu ne jox na ko Aziz. yow mercredi mercredi la la wax ni la. mercredi la ma wax loolu. mercredi jeudi vendredi samedi dimanche. ci quatre ci quatre ci euh, quatre jours cinq jours fee bi am. yow nabu waxu la waxi xaalis mais yow yaa waxu nabu waxi xaalis. waaw wax dëgg yàlla moom moo bu ma woowee téléphone wax ba muy coupé waxu lu ci jëm. barki alxuraan karim. man ko laaj man ci boppam man ko ko laaj. parce que sagam sama mag waxoon na ma loolu rek. Mhm. man il faut que ma laaj ko moom ndax sama mag dem na mëntu ma ko laaj ndax jot na ko wala jotu ko. nabu mu fekkee te mu sos natt bi moom képp laa mën a laaj nat bi mu demee. ma mhm. ko xaalis bu mot waaye mujj na koo délai ba xaalis bi mujj naa mat ba jox na ko Aziz. ok wax. ok d' accord d' accord d' euh, fi may fi may fi may fi may fi may jeexalee ak yow rek euh, moom mooy moom mooy jaalewaat la jaalewaat euh, famille bi jaalewaat képp koo xam ni yaa ngi déglu bàyyi la rek nga sa dernier mot sa dernier moo depuis bi affaire bi amee rek ndax yaayoo nabu wala ak yéen déggante ngeen wala ñëw na fa wala ñëwu fa. waaw comme ni ma la ko waxee woon sànq rek a bi bu amee yaay nabu ak nabu ak magu Aziz ak magu ak mag nabu. ñëw nañ fa ñëw nañ fii. mais bi coow li amee ba ñu tudd ci nabu ndax ñëw na fa. ndax lan buñ ndax buñ téyee nabu. waaw. non non ñëwul ñëwu fi. ah xam naa dafa am naqar yaa ma a xam ndax ñu téye a metti man loolu lañ ko jàppee rek ñoo jàpp nii rek. Mhm. dafa amee lu ko du mën a ñëw wax dëgg yàlla. Euh, question bi may laajaare xëy na laajaar naa laajoon naa ko mooy turu turu nabu bi ci deewu Aziz ñu tuddee ñu tudd ko ci bi bi ngeen ko njëkkee dégg yéen famille bi gëm ngeen ko waaw man moom bu nekkee man moom wax dëgg yàlla gëw ma ko woon man samay mag sa dañ ma doon gëmax ci bopp naa ma yow kañ ngay yeewu comme ni ma la ko waxee woon sànq kañ ngay yeewu bu tax gëmoo parce man gëw ma man xam naa parce que man dama xam diggante nabu ak ak ak ak Aziz parce que Aziz da daan waxtaan ak yow waa Aziz déggoo ma ne la sama seex la man Aziz sama seex la mhm. parce que dafay waxtaan ak man lu mu dul waxtaan ak yaayam loolu na bépp xam nañ ko suñu waa kër dañ naan ma Aziz moom jël yaay jël yaay ménagère Aziz maa ngi moom dañoo sëf trop trop trop trop moo tax buñ nee nabu man a yi daf may xaw a jaaxal parce que man diggante nabu ak Aziz man dama ci xam lu bari bari bari bari sax lu bari sax lu bari lu bari parce que man dama judd bu ma juddoo bu may màgg dama ko fekk ak Aziz ah. ma ba nu may màggee ba nu may xàmmee nabu ak Aziz su ma juuma war naa nekk dix neuf ans ba dix huit kon xam ne moom loolu du tay dafa yaatu du tay xamante ne ñun ñaar ay ay seex lañu ñooy xàccandoo ñooy dóorandoo ñooy tëddandoo ñooy yeewandoo booy xool sax loolu laay wax waaye tey jii kooku tey nee la buñ nee la euh, euh, kooku taxal na ko wala bokk na ci dafay xaw a waar parce que a Nabou ak Aziz ay seex lañu ay seex lañu ay seex feebar bi ñuy wax ni Aziz da koo feebar nag uh-huh. ndax feebar boobu lu amoon la waa feebar bi am na mais feebar bi tëralu ko ndax mercredi bu ñuy ñëw vidéo yaa ngi sama téléphone mu ngi yor mbuusu garabam dama ay da hôpital laa jugee nii mercredi dama ay da laa jugee nii Mhm. mais terewu ko ndox terewu ko ambiance terewu ko def dara wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla te ne feebar gi moom terewu ko tëddalu ko daal feebar na nii turu feebar mais peut être xam naa lu ko doon yóbbu kese la mhm. kon moom jàpp yaram bi eh, Aziz yéen ñaar seen seen seen euh, pour nga xam ne Aziz dund na dimaas moo yónnee na la wéef waa ban ay sept woo na ma téléphone mhm. bu ma woowee woo naa jotuma la te numéro bi da laa bëggoon xam dal la bal la parce que damaa dama la war a yónnee xaalis affaire yooyu noonu léegi man loolu bu amee tag rek dama ko woo ci saa si rek dama da ngaa bëgg xaalis ma da nga ko moo tax ren du ma damay màggal damay màggal ji mhm. ndax numéro bii la ma ne ko numéro bii la Aziz envoyé ma xaalis bi ay mu ma koy envoyé ma ko dama def ci lii ak lii ak lii ak lii Aziz maa na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. na yaa rabbi yàlla yàlla wàcc ci kawam. amiin yaa rabbi euh, moom ak moom euh, ak Boy Waly. ah amiin encore une fois gis naa famille bu dal gis naa famille bu gëm yàlla. Euh, sa yaay sa tante dugal naa ko sa yaay gis naa ay vidéom yow tamit ci suba bi ñu waxtaanee xam naa ne ku dal nga fi mu leen féete woon yàllaa ko ëpp doole yàlla yàlla féete leen fa amiin yaa rabbi maa ngi lay jaajëfal bu baax merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci beaucoup jërëjëf jërëjëf merci merci beaucoup. nag Aziz Dabala moo ma wan aar moo tax ma ñeme moo ma wan yoon voilà depuis bi may nekk xale laa ko daan topp mu daan jaayal yaayam doon def bàyyi caayam. daan jaayal yaayam saabu di taasu di jaayal yaayam ndox di taasu ma ko doon suivre di ko fréquenté këram bu ma ko mosaan fekk këram fóot sax da daan defal yaayam comme xam nga noonu nag ma dem nag ba màggaale ci ak moom ak ni ma ko doon fréquenté donc lu bëri daf ko def ci man ba yërmande sax amaana bi ma am ci sama yaay lu ci bëri ci moom laa ko seetloo donc ñaar ñooñu moom samay samay jamaa lañ ñooñu moom touche pas